Euh, ne ko euh, dinañ la dinañ la arrêté aussi du solution partem tamit euh, ñu wax ko ne ko kat yow lii ak lii ak lii moo lay wane que ne Ousmane Sonko nekk na en avance contre lépp loo xam nasal nañ ko ko Ousmane Sonko xam na ko ba ba avant ñu koy jàpp xam nañ ne que ne dinañ ko jàpp ba avant ñu dissoudre partem tamit xam nañ ne lii lañ koy daal di waajal mu nekk daal benn mbir moo xam ne dafa jaaxal ñu bëri. Ousmane Sonko dafay xam li nga xam ne euh, ñoom la régime bi jamono ji di togg. mais mais loolu xam nga Ousmane. Ah. dafa nekk à l'avance ci ñoom loolu loolu du kenn lu luy werante mais ah. xoolal ay Aliou Sow yi ah. doon wax naan joomaay dañ du bokk. Ousmane du bokk joomaay du bokk. mais ñoom dañoo natt ci Macky Sall tax ñu wax loolu. xam nga loolu man ku ma mës a toogal plateau boo ma ko waxee dama naan c'est très normal parce que da nga jàpp ne ñun nekkuñ ci état de droit moo tax lii ngay wax nga di ko wax koo xam ne Ousmane Sonko amul dara lu ko tee bokk ci droit. ba pare malgré loolu loolu la waa ji wax te dana ko exécuter maanaam mooy liy xew ci biti rek nga jotee borom alal léegi mu ne la danaa la te moo la tooñ mu ne danaa la tëj ba pare lim la wax am. léegi Sénégal boobu bu ñu tàmmee di dund ci yooyu nga xam ne yow yaa ngi tàmm yow chaque jour yow yaa ngi ci menace xam nga ñun suñ yaram yi sax dafa am dafay suñu dara jotee dafay décréter li ñuy wax anticorps ay anticorps maanaam ay mm-hmm. soobare maanaam ay soldats yuy xeex. virus. boobu noonu di nekk ci ñun. nga xam ne yow bala ngay dem hôpital sax am na yu lay dal yoo xam ne yëgoo ko te sa yaram a ko fajal boppam. Mm. loolu la ñuy wax des anticorps léegi virus bi nag bu demee ba ëpp doole anticorps yi ci ngay doog a mën a dem wuti. garabu pharmacie boo xaw ne da ngay kii mu xaw ko dànk dimbale sa soldaar yooyu ñu mën a xeex jàngoro ji loolu noonu bu teewul nga doog dem médecin consulter la defal lu efficace soit dañ lay vacciner dañ lay joxi doom wala dañ lay dañ lay loolu la ñuy teg. Mhm. même ñun doomu aadama bu fekkee ne dañoo nekk ci dëkk boo xam ne ki ñu jiite dañu jàpp ne dictateur la maanaam wala dañoo nekk ci régime boo xam ne dictateur maam jaay doole. Mhm. ñun chaque fois suñu xel yépp dafay tënku ci boo xoolee nit ñi li ñuy gën a maîtriser léegi mooy justice. du économie du leneen ak leneen. Sénégal bu fekkoon ne Macky Sall mooy loolu muy bañ ko ko wax bilan immatériel boobu te man mu tënk ko ne mooy jom. Mhm. maanaam moom la euh, régime bi amul loolu noonu bu fekkoon ne dañ ko am naga ni ci économie la ñuy wax Abdourahmane Diouf ak Sonko ku gën a baax baaxle euh, kii nu mu tudd programme seen livre solution ak livre construction xam nga tabax bu Boubacar Camara ak solution ak bu bu bu Thierno Alassane Sall ak bu kii ban moo gën yooyu la ñuy wax uh-huh. mais Sénégal ñu wax loolu parce que ñun ñëpp dañu nekk di dund benn injustice ci côté boo tem rek uh-huh. da nga fay fekkee injustice boobu mu mu mu taxaw ñu dalay tooñ tardeel la xam nga defeek yow noo xam ne ni dara baaxuti ak yu demee noonu loolu nag bu ñu koy dund ndegam maanaam ñi nga xam ne tey dunduñ sax problème yooyu dañu jege régime bi mais ci ni régime bi doxee moo taxoon ñoom ñu sañaat waat sax amaana boo leen waat loo woon sax ñu waatoon ne joomaay du bokk parce que dañoo nekk ci dañu nekk ci injustice problème boobu loolu nag loo koy def ndegam nag ñawoon ca ñawallu si woon a tàbbi ca pind ba mhm. sàkkam ñawal ñawallu ndegam ñawallu si woon a tàbbi ci teen sàkkamtuma laa ak ñi taxawoon ci pind bi Ousmane sonk mi taxaw ci pind bi kay te moom moom la moom la lépp di dal moom kay mooy war a gën a xam ne ñu ngi ci ay yoxoom beneen bi mooy uh-huh. euh, kaawu Karim Wade jaar fi xalifa jaar te dégg nga démb li mu ko wax <laughs> baatu option ne xam nga Ousmane dañ doon wax plan B uh-huh. mën naa ne la may ki ko njëkk wax ne Ousmane yorut ay plan ay option la yor ay option démb même chose la la wax uh-huh. maanaam bi nit ñi gis naan ay plan nangam nangam Ousmane yorul woon plan ay option la am mooy tànn sa bu la neex parce que dafa am ku wax ne nee na plan B baaxul lépp looy dugg di ko wute plan B. parce que yaa ngi xalaat sa échec après. mais Ousmane dafa dem a un moment donné. Uh-huh. te sax bu doon jëmmi boppam sax man na continuer du sax wut option bu doon jëmmi boppam rek. Uh-huh. wala moom li mu gëm. ak man ma gëm ko muy lii ak jaay dooleel dañ ko war a dindi parce que jaay doole ko ëpp doole. Mhm. affaire ma kuy def yëfu maa tay tay kuy tay taylu da koy wan ne ko maa la gën a dof mais boo sóoraalee benn population boo xam ne on est à dix am na ci ñoo xam ne amuñu degré compréhensif bi ñu am boo gisee ñi gën a émo ñi émotion gën a jàpp tey mooy mhm. noonu Ousmane pas noonu sax ñi ko xawoon a umpale nga xam ne xamuñu woon jëmm ji. ba pare ñooñu la affaire bi gën a sédir même. parce que ndiki démb génnam bi am na ñoo xam ne da leen a da leen a maanaam leen a non da ko doon film rek ci nga ko doon seetaan te loolu mën nga ne film la. voilà boo Michael Scofield. c'est mm-hmm. très normal nga bind prison break. nii lay demee ah nga daal koy teg parce que film la. film moom lañ lay indil benn américain dugg biir Afrique dem Congo. mën a rey ñëpp bu paree te kenn du dee ci sept personnes yi ñëw xam nga loolu film rek la. Uh-huh. <laughs> yaa ngi may dégg. <laughs> maanaam wala nga ñëw def el per el professeur. bon respecté naa film boobu parce que nan la woon ay ay tactique ak yu demee noonu yëpp. mais da xam ne am na lu irrationnel lu ci nekk. mais lii Ousmane ko dund. te fii la ñu nekk ci Sénégal te mosuma gis kan ku dund lii mu dund. ci àdduna bi yëpp nag nii mu planifier lii mu def nii tey. lu ñuy jàngale ji ëllëg la. parce que mois de après nga ñëwaat ba janvier 2024 même chose nga gisaat ko. po uh-huh. les trente quarante huit lois yooyu waa ji bind te am yu ci yoo xam ne dara baaxu ci ànd ak ak yooyu mais ki ko bind xalaat la ko def mais kii lii mu def tey maanaam Ousmane dafa dugg ci histoire man dama jàpp ne lii nii. ëllëg bis bu Ousmane demee ba nekk président Sénégal. Uh-huh. yàlla na ko yàlla jox balaa yàgg. Uh-huh. Euh, jiite Afrique ñu bari nangul nañ ko parce que pro loolu doon problème mais sax au delà de loolu sax ñu mën a dem ba Afrique commencé booloo ak yooyu liggéey boobu Ousmane day nekk fi ngay mën a classé Mandela wala John Lawrence bon sama góor gi nar a volé volé la vedette rek ma ci naqari. mooy kan Ablaye maître bi mu nar a volé volé la vedette rek parce que tey da koy jiitoo lu bari instant bi moom lii bis bu ci génnee. suñ borom defal ko sutura sutura ba mu koy nettali nekk président. dina volé la vedette euh, maître Abdoulaye waaw waaw loolu moom. loolu moom xaw na ma naqare. <laughs> waaw ndax sama góor gi moom. mais bon loolu nag. loolu moo am njariñ nag. sax wax dëgg yàlla parce que réew bu dee dox. dañu war a am ay nit yoo xam ne fi ñu teg lii. Mm. yeneen ñi génération yi ñëw dañuy ajaat baar bi kii ñu nekk en compétition. maanaam ñi nga xam ne tey dañuy mat suñu ay doom ëllëg ñëw def kenn ci ñoom def li gën li Ousmane ko def. loolu mooy mooy dëgg parce que loolu loolu la ñuy kii mais pas ñu continuer parce que fan yële dama am ak benn ancien ministre débat. muy wax naan euh, gars yi léegi jàngatuñu affaire doctrine école parti ma ne ko yow yéen ci génération ñoom wàdd ngeen jàngee mu ne waaw ma ne ko li ñu leen jàngal baax na mu ne waaw ma ne ko après yéen ngeen nekk génération bi ñuy jiitu léegi yow nga wane ne ñun xamuñ dara. bu ñu xamul dara sa échec la yow mais comprendre fu ma koy waxee dafa am benn compilation bu sama benn waay il est de nant mhm. Nantes Xaadim Mbengue bu mu doon def di wàdd doon wax naan génération yii di ñëw bi ñu fi nekk ay léniniste marxiste ak yooyu du leen tënk gis nga boo déggaatee li Ousmane doon wax naan idéologie yi gaa ñoom mhm. tënku leen ñoom li ñu gëm mooy Afrique mu am lu ma doon leeral démb comme journaliste bi ma jàkkaarloo woon dafa mel dégg mhm. lu neex wala lu baax ci Ousmane ko daf ko dégg ko ci noppam daf ko xaw a të mu mhm. may sax indi théorie naan moo affaire populisme ma ko soxna si booy wax populisme yàlla mu populaire population volonté populaire kon respecté leen doomu aadama yi mhm. su nit waxee ba li ëpp ci askan wi jox ko bopp ndax li mu wax waxuma ngeen respecté ko moom mi wax loolu mais askan wi ko topp mhm. ñi am paresse intellectuelle wala politiciens yi ñàkk jom képp ñooy ñëw au lieu ñu euh, faj jàmbatu askan wi mënuñ ko faj mhm. xanaa di ko giiñ naan benn nit day def affaire populisme voilà parce que président Macky Sall dénoncé woon na li ni mel mais populisme dafa weesu moom li mu doon wax wax ay nit yu dugg ci biis nangam nangam manipulation loolu du manipulation mais mu leef manipulation la parce que biis boobu ñu ma wax ne tàkk la loolu lan moo ko gën a nekk manipulation xam nga dëgg bu dee dëgg rek nañ ko nañ ko nañ mhm. ko wax. te loolu moo ci ba léegi moo ci moo moo moo ci nekk. voilà ba léegi. Mhm, mhm. Mhm. atia non non demal demal. ba léegi ñu daal di euh, dugg ba léegi li nga wax tamit euh, lu am solo la lool loolu mais aussi ñu ñëw ba léegi ci mbirum Ousmane Sonko parce que euh, comme nuñ ko waxee tantôt sortem bi nekk na sorte boo xam ci bëri xaaruñu ko woon waaye nag génn na ci moment bi nga xam ne ca la war a génnee mais prison Macky Sall renoncé. yóbbaale Ousmane Sonko pourtant éventualité boobu bëri na woon ñoo xam ne ñu ngi ko doon waxtaanee que ni Ousmane président Macky Sall dafay renoncer yóbbaale Ousmane Sonko Ousmane Sonko di ki mu dëggal na ko parce que euh, président Macky Sall am na ñu waxtaanal ba waat ne euh, Ousmane Sonko bokk ci les élections moom jot na euh, xam na loolu li daal di teg ay éventualité cela veut dire que ne Ousmane Sonko nit la koo xam ne pouvoir terew ko nelaw comme ni mu koy faral di ah, kay léegi nag bu ko pouvoir teewoon a nelaw. Mhm. ci la ko Macky Sall di yóbbaale. mais Macky yóbbaale ko. xam nga lu tax Macky yóbbaale wu parce que euh. jamono yi mag yi moom dem na toog ut mbërëm yóbbu ko ci géew bi. Uh-huh. mbërëm moom moo ëpp information mbërëm moom moo nekk di doxal xool burdu bi mu def démb tuubaa xam nga démb Touba barki démb. Uh-huh. ne Touba yi jóge ci réew mi di fi ñëw mel ni Touba nekkul ci biir réew mi xam nga ñëw ne waa tuubaa dañ leen a war a defal lii ak laa ak laa te Touba googu xam nga man dama am sama benn grand boo xam ne. dafa bokkoon ci ñiy parrainé Amadou Ba comme sama benn papa ñaan na ma nag. bu ma tudd turam tey. waaw yàgg naa tudd turam. mais dama ko signalé ne li mu def affaire ñàkk jom la ko parce que mënuma jàpp Darou Rahman. Mhm. ñu am benn bassin de rotation boo xam ne daaw la toj te daaru ma suñu am problème mu ndox bu tawee suuf si day naan mais ñu jël ndoxum Touba indi ko daaru defarewuñ bassin bi defaree bu baax affaire bi yàqu yàqal borom tool yeeg yépp mhm. ñu ñëwaat diggoon leen ay dig ne danañ leen euh, dédommager ba léegi kàcc kese te ñëpp jàpp nañ ci kenn daal laa mën a wax ne mooy préfet bi bi sama benn papa sax mi ngi dem bu yàggul ci moom mais boobu mooy bu daaw. Mhm. mais ren mu ñëwaat gën a gaaw graaw yàqalaat leen nga xam ne boo ko doon évaluer ci li mu leen yàqal ñaari yi ëpp nu milliard. sama benn pap euh, ku ñu wax maam Thierno dem nee na dem na ba ci préfet mu ne ko sëñ bi mu ne ko li ma war a def yëpp def naa ci man la war a jógee dem ci gouverneur remonté yegg ci kaw. Mhm. yéen ñëpp jël naa seen ba léegi ñu leen di seetaan léegi yow boo ñëwee da ngay pare ne Amadou Ba ci dëkk boobu ñu tooñ leen te yow Amadou Ba moom joxoo ko information mu defar. suñu bassin bi defarin bu baax. Mhm. wala transformer ndox mi parce que problème mu cu nekk Macky Sall bokk na ci ngay ñëw di transformer ndoxum géej comme KMS 3 nga koy désaliniser alors que ndox mii di jógee ci taw bi. dañ koy dajale boo demoon Daaru Rahman ba fekk fi ndox mi nekk day mel ni dangaa jàkkaarlook dex wala géej tellement ni ndox mi bare loolu traité ko du dara pour ne serait-ce nit ñi di ci bay bayum dër yow loolu Touba la xewe maanaam Touba tey am na lu ko fa mën a def li ñu yàqal toolu ndokk yi ñu yàq ba mënuñ koo jariñoo loolu li ëpp ci marché Ocass bu Touba ak ni mu toll li ëpp woon ci li muy revêta revêta yooyu frisé la jum foofu lay jóge yow information yooyu joxuñ la ko maire bi joxlu keneen joxlu ko te yow nee nga yow yaay premier ministre topp ci gën a l'homme le plus informé. maintenant nag baat boobu moom day daal toxu l'homme le plus informé <laughs> ça devient Ousmane Sonko. Ousmane voilà léegi loolu day léegi yow nga am benn joomaay boo xam ne ñu ngi muñ làq ci kaso bi moom du campagne mën naa bañ a campagne. Mm-hmm. ba nit di xam lu mu teleeg lu mu nàngam. Mm-hmm. mais li ñu soxla mooy soppi li ñuy soppi ku am ko du du làkk am na ay junniy junniy kudd ci bitti. boo demoon Touba képp am na Seex Coro am na Saa Wolof am na Diouf Lambaay am na jóob Taïf ma koy salye dégg naa ci kanam tuuti ngi ñëw ak yi demee noonu am na ay sëñ Assane Mbacke mm-hmm. am na ay nga ñëw dakaar fi ñoom Abbas Fall ñoom ay làmmi ñu daaru nga dem ba ci bitti ñépp di ko taxaw li ñoo ñëpp nekk ci benn kii boo xam ne li ñuy wax opération wër ndomba am ci ñeneen ñoo xam ne tey ay développeur yoo xam ne tey ñu ngi pare jël seen expertise pare pour joxe ko ci mhm. disposition coalition bi man rek maanaam mën naa cee jël ñaar ñoo xam ne am na ci koo xam ne sa application bi wanagu ko kenn man la ko njëkk a wan pour ma xam li muy te loolu rek dèjà xam naa ne bokk na ci léegi ma gën a mën a sécuriser ba te ni ma ko xamee am kooku ak keneen noonu la ñeneen mën a amee kon lii fi am nii kon mooy Ousmane Sonko bu yaa bu mag yaakaar ne génne na ko ci coow li loolu mhm. Ousmane nag moom li mu def nee na day xeex dëgg. ba jusqu'à dernier souffle la te loolu mooy dëgg nekkul ne jiite daf ko fat wala daf ko tere nelaw. Ah. maanaam xeex ba dëgg am. te loolu man daf ko niroo léegi man. est-ce que looloo ko permettre looloo ko may lii ni mu am. mais looloo ko may lii mu am moment bi nga xamee ne fa la PDS échec 2019 ak xalifa uh-huh. bañ ci tolloo mooy dañoo jëloon lépp centraliser ko ci seen bopp ci seen jëmmi bopp jëpp. ki la ne man bu ma demoon ba defuma affaire sax dañ ma war a rocc indi keneen. ba pare mu wanewaat ko maanaam Karim Wade fot 2019 fotaat 2024 toujours te Karim au lieu moom mu tobbi woon ñeneen sax nga xam ne ñooñu lañ koy ragale mais loolu defu ko mm. nga xam ne lépp da ko miser sa bopp nen yépp nag boo ko defee ci benn peñe yi yanu ko ba pare jaar ci xeer di jéggi ndox ah bu daanoo da ngay léegi nag boo ko yanee lu mat ñeenti nit nag gars yi duñ xam kan la ñuy topp. voilà loolu mooy firnde stratégie yi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy teg juste rek pour étouffer euh, régime actuel parce que ku ne xam ne ne euh, président Macky Sall ak ñi mu ànd xarañteef bi nga xam ne am nañ ko ci euh, maanaam yàqal liquider ab candidat politique. Ousmane Sonko xam loolu li devancé leen ci lii ni mel teg ay option yoo xam ne pour le moment kenn xamul exactement kan la Ousmane Sonko di choisir. ah bien sûr non non xam nga sax ku dégg ko muy wax di nga xam. Mm-hmm. di nga njort ki muy choisir mais man loolu joxañam la dama koy bàyyee. Ah. moo tax damay tere sama bopp man di ko wax. donte ne mën naa cee am sama xalaat. parce que problème bi mooy jëf na fi lu toll nii li ma waxoon keroog du ma ci dellu du ma ko tere ñeneen ba pare ñëw di ko wax. Mhm. mais ku xool ni mu waxee da nga xam li mu def en tout cas da nga xam ne ñaari option la nar a def mooy am benn candidat képp ñëpp dem topp ci ginnaawam. Mhm. wala mu am benn candidat ak yeneen ñaari mhm. candidat yoo xam ñaar yooyu dafa am. fi question bi nekk moo tax jàpp naa ne option boobu day am parce que problème bi ñuy wax tey. PDS ak loo leen <laughs> bañ bañ ak loo leen xeeb xeeb xam ne dañuy poser soo sukkandikoo woon ci local yi parce que man législative bi duma ko jël. local yi. dañoo am quatre cent quatre vingt quinze mille wala quatre cent quatre vingt dix mille mat nañ ko. voix yu ñu am yooyu c'est pas à négliger ci élection yoo xam ne yaa ngi naan. taux de participation yi bu yéegee ba yéeg mën naa bañ a dépasé cinq millions. wala quatre millions. xam nga kon cinq cent mille voix danga ko soxla. Mhm. léegi loolu boo xoolee même ñoom seen kii bi ñu dugal PDS seen kii bi ñu dem yóbbu enquête parlementaire bi ñu def boo xoolee makis euh, député APR yi di ko càmbar. di fee semblant naan dañ koy càmbar. <laughs> non dañ leen di dóor rek dañ leen di xaw a kii pour bañ ñu mer ñu frustré wu comme comme ça suñ leen bëggee courtiser mu mm. yomb loolu la rek du leneen lu dul loolu. du mujj fenn loolu moom maa ngi ciy bégal ñëpp du mujj fenn loolu la mais PDS tamit ñoom ñoo war a xalaat. Mm-hmm. bokk ci liy soppi boo bokkee ci luy soppi nga xam ne dañ ne sa yëfa ngi ci dañ ne daal ah pañe bii la ñuy yóbbu wala lii la ñuy yóbbu waaye bi gaa yi dem géej. joxe woon nga ci yi njabam mooy li nga xam ne moom la mooy ration yi borom gaal yi di yóbbu bu ñuy nappi waaw nga ñuy dem waroon a yóbbu njaba cinq cent mille nga joxe ci quatre cinq nga joxe ci cent mille francs mhm. ñu daal di dem géej dal cib naax jàpp biñ ñu jaay am bénéfice wu trente millions yow mi joxe woon cent mille ah man ngaa seen gaa yi jox la un million loolu day baax léegi nag PDS buñ dof PDS tamit bu boobaa bu dul woon lii dañuy mën a am option dem ci Boubacar kamara man loolu laay jàpp moo leen gën a jege parce que dem ci Macky Sall moom wala ku ku jàpp ne mag i Sall nga àndal xaru la ci ñoom te jàpp naan duñ xaru. ils sont hmm. très intelligents def mu ne dofee nañ ñoom. li ñu mënoon a jàppale Macky mooy comme nañ defoon deux mille dix neuf ñu ne dañoo neutre maanaam jàppale nga Macky indirectement mais bii jàpp ma ne danañ xalaat loolu kon bii nii ki ñu gën a jege mooy Boubacar kamara hmm. léegi nag ne serait-ce que candidature Habib Sy su ko Sonko booleeg beneen. Mhm. Habib Sy day mën a captiver électorat PDS. parce que gën a jege gën a yey. te mhm. entre Habib Sy ak Boubacar Camara Habib Sy moo leen yi gën a jege. loolu da ngay xam ne te tamit day wane ne seen électorat ba léegi mi ngi fi dañ koy mën a approprier wu ëllëg te danañ man sax ëllëg. Sonko di doxal maanaam candidat waa Kër Sonko di doxal Habib Sy ak waa PDS àndandoo doon benn ci législative yi ñu dem am ay député parce que loolu mooy gën ci réew mi sax après parce que man damaa maar ay coalition yu du jeex wala dara. Mhm. parce que loolu man ci Macky Sall rek laa nangoo coalition continue di am mais man dama bëgg bu ñuy jeexee ñu defar parti politique yi ba mu nga xam ne day indépendant. Mhm. nit ñi di mën a compétir seen biir parti politique yi duñ fi nekk di am ay plusieurs parti euh, parti politique à ah, n'en plus finir parce que sans parti. ci Sénégal dafa ëpp léegi ñu mën a compétir ba nga xam ne parti yi dañuy rationaliser ñi mën a ànd ànd mhm. ñuy dem ay primaire suñuy dem ay primaire taxaw nga xam ne bu ñu demee ci élection affaire bi day leer ci ñoom idéologie maam ñenn ñi liñ gën a gëm yooyu yëpp day daal di leer loolu mu am kii léegi am ci loo xam ne tamit dama koy wax sutura si suñ borom defal